jigéen ñi ak yàlla sunu nettali tey mooy yeesu ak jigéenu samarija ja nettali bi mu ngi cosaanoo ci ñaar buur yi saar fukk ak ñaar aaya ñaar fukk ak ñeent ba fanweer ak ñeent esayi saar juróom fukk ak juróom aaya benn ñaar fukk ñaar ba ñaar fukk ak ñett aaya benn ba ñeent fukk ak ñaar saar juróom ñaar aaya fanweer ak juróom ñaar ba fanweer juróom ñett benn korent saar fukk aaya ñeent ay njiiti diine indi nañu ŋaayoo bi ñu ne yeesu mu ëpp yaxya ay taalibe bu yeesu déggee loolu dafa jóge yude dellu galile yoon wi jóge yude jëm galile wi gën a gàtt mooy nga jaare ko réewu samari yawut yi bëgguñu woon jaar samari ndax soppuñu woon waa samari yéesu ak i taalibeem agsi ci dëkk bu ñuy wax sikar ci wetu fi ba dëkkoon te daggaloon fa suuf doomam yusufa foofa la teena ba nekkoon yéesu sonnoon na lool ndax tukki bi mu toog ci wetu teen ba ngir noppalu ab jigéenu samari ñëw ca teen ba ngir root si bi mu agsee yeesu ne ko may ma ndox ma naan ndaw sa jaaxle tontu ko ne yow ngay yawut man may jigéen ju dëkk samari nan nga ma mana a ñaane ndox yeesu tontu ko soo xamoon li yàlla maye xam ki lay ñaan ndox kon yow ci sa bopp yaa koy ñaan te moom dina la may ndoxum dund jigéen ja ne ko sang bi teen bi xóot na te amuloo baag kon foo jëlee ndoxum dund xanaa kay xalaatuloo ne yaa gën a màgg sunu maam yanqooba moom mi nu gasal teen bii mu naan ci moom ak ci doomam wugg ci juróom Yeesu wax ko ne ku naan ci ndoxum teen bii balaa yàgg mu maraat waaye ndox may joxe ku ci naan du marati mukk ndax day nekk ci moom bëtu ndox buy ball di joxe dund gu jeex noonu jigéen ja daldi ko ne sang bi may ma ci ndox moomu ngir ma bañ a tee mar bay ñëw ba fii di root si yeesu ne ko demal woowi sa jëkkër te ñëw jigéen ja tontu ko ne awma jëkkër de yeesu ne ko wax nga dëgg ne amuloo jëkkër ndaxte amoon nga juróomi jëkkër te ki nga nekkal léegi du sa jëkkër li nga wax dëgg la jigéen ja ne ko sang bi gis naa ne ab yonent nga nun nag naka jekk sunuy maam ca tund wee ngay séen lañu daan jaamoo yàlla waaye yéen yawut yi dangeen ngeen ne yerusalem lañu war a jaamoo yàlla yeesu ne ko jigéen ji gëmal lii ma lay wax dina am jamono joo xam ne du ci tund wale te lu ci yerusalem ngeen di jaamoo baay bi yéen waa samari xamuleen li ngeen di jaamu nun yawut yi xam na li ñuy jaamu ndaxte kiy musal àddina ci yawut yi la jóge waaye jamono dina ñëw te agsi na ba noppi jamono joo xam ne jaamukat yi dëgg dinañu jaamu baay bi ci xel ak ci dëgg ñooñu nag ñooy jaamu baay bi ni mu ko bëggee jigéen ja ne ko xam naa ne almasi bi maanaam kirist dina ñëw te bu ñëwee dinañu leeral lépp Yeesu tontu ko maa di almasi bi man miy wax ak yow noonu jigéen ja wacc fa njaqam daldi dem ci dëkk ba ne leen kaay leen gis nit a nga feye ku ma wax lépp lu ma mës a def ndax kooku du almasi bi noonu waa dëkk ba jóg jëm ca Yeesu ñu daldi dikk ñaan Yeesu mu dal ak ñoom Yeesu toog fa ñaari fan ñu bari gëm ko ndax li mu doon wax ñu ne jigéen ja léegi gëm nañu te lu nga wax moo tax waaye li nu gisul sunu bopp te xam nañu ne dëgg-dëgg kii moo di musalkatu àddina si fii la nettali bi nanu jàng aaya bii ñëwal na képp ku mar ñëw ku bëgg duyal ci ndoxum dund mi te doo fay dara peeñu bi saar ñaar fukk ak ñaar aaya fukk ak juróom ñaar walla ku mar na ñëw ci man ku gëm na naan ndaxte mbind mi nee na ndox mu bare muy dundale dina xelle ci dëndam yowana saar juróom ñaar aaya fanweer ak juróom ñaar ba fanweer ak juróom ñett